mais première question bi may tontu mooy dafa am loo xam ne moo tax suñu réew jafe wax parce que toujours dañuy basé ci lu ñuy yëkkati du ko wax te ki ko wax waru ko wax. Hmm. yenn saa yi mu nekk koo xam ne ki amul tour amul adresse amul domicile. kenn mën na ko takk fenn. te foo naa ne wax boobu jeex ne et je demande encore au journalistes de nos pays et du Sénégal sénégalais. Hmm. nañu bàyyi interroger nit di ko laajte te moom fu mu dëkk am mbokk am xarit am domicile am géer am géwël am tëgg am àndandoo am selbe am njulli cette région revient depuis pratiquement vingt ans je ne m'appelle pas Amadou Moustapha Wade le Google n'est pas une vérité absolue mhm. juddoowuma Kaffrine je ne suis pas né en 1936. sinon sax ma mag sama papa c'est absurde et malheureusement encore une fois. loolu nga fay loolu ñu koy waxaat toujours donc tudd noonu. Mhm. Doudou Wade laa tudd maa ngi judd 9 juillet 46 à Dakar aw ma jugement supplétif ci suma ay kër maam laa juddoo fii laa jàngi école Doudou Wade laa ah, ñu bëgg la yóbbu Kaffrine tamit. waaw ah, mais parce que loolu aussi ki ko def def na ko rek mais am na ko ko jotali parce que léegi jotali nga ko. waaw mais parce que dama ko gis mu jaaxal ma. Ah. moo tax ma bëgg ko xam nga bëgg leeral loolu dañ bëgg leeral moo tax. ma ma soulever ko fii. donc léegi encore pour pour que cette question soit close définitivement.